Jérôme Souleymane. wala monsieur le ministre. ah Jérôme bàyyi sànni xeer yi yow tamit Jérôme. non yow sama xarit dinaa dinaa dinaa dinaa bàyyi woote si émission bi. bàyyi bul def loolu soo defee soo defee loolu moom du ma gënal xam nga tamit sama xarit nga mënu ma laa ñàkk nuyu. ah bàyyi ma ji ministre waay. yow kay nekk ministre Macky Sall. autorité yi dañ naan. Euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi ñoo ñoo fi teew ñu ngi leen di nuyu am ci tubaab sax ñu naan en vos en grade et qualité noonu la ñuy noonu la ñuy nuyoo yow tamit dama leen nuyu rek ci sa rang ak sa grade ak sa qualité. waaw moo tax mani la man ministre Macky Sall nekk ko déedéet mu. ci la nekk nag. ah maa ngi rek. di sant yàlla bu baax. waaw sant yàlla gërëm yàlla bu baax a bu baax. Mm-hmm. bëgg waa ji nekk nekk nekk président deux mille vingt quatre rek si kàttan yàlla yàlla na ko yàlla def. Ah, d'accord. waaw. Mhm. waaw léegi Kaolack li fa am. waaw. xam nga Zeram. Mhm. nañu bàyyi nañu bàyyi Sénégal dafa bëri affaire ay naafiq. ah d'accord. Zeram ki sol lu xonk li numéro neuf boobu ñaata nit lañu rey. est-ce que imam génn nañu. est-ce que ay imam génn nañu numéro xonk boobu yoroon kii bi ñuy rey sénégalais est-ce que ay imam génn nañu prendre mooy am na loo Sénégal soxor coxorte moo fa am léegi li fa amoon li fa li am yëpp amu fa woon nit ak lu mu mën a def ci àdduna yow waroo ko génnee di ko lakk lakk nit moom loolu yàlla nañ ci yàlla musal mais soxor ci gouvernement bi nekk moo tax nit ñëpp di def yëfu parce que réew njiit bi bu soxoree rek waa réew mi dañuy commencé di soxor ñun xamuñu woon nit ku sol numéro xonk yor pistolet di tiir ay nit tey ji génnee nañu nit ci armée la di ko di ko lakk bu subaa leneen la ñuy def ah, mais balaa affaire bi doon neex bi doon neex ñu génnee ñu numéro xonk borom numéro neuf ñu génnee ñu ko mhm. te kii moo yoroon doon tiire après nag di soog a jàpp nag kooku rey kooku ñu téye nit ñi génnee nit ñi di ko lakk ñu soog a leen jàpp. mais mais léegi léegi yow lan nga jàpp lan nga jàpp ne moo waral aussi quand même askan di réagir ni ni mel parce que tamit yàgg dégg day fait similaire ñoo xamante ni euh, dañ leen di jiiñ ne. parce ay ay ay ay. yar. mais dañ leen daan ñi leen jiite yaruwuñu nit ñi yaruwuñu xamuñu Sénégal dafa bëri ñoo xam ne xamuñu. dëkk bu ci foo boo bëree foo caaxaan sàcc mhm. fen trian lii rek a ci am ah, dëkk day am loi loi loi la dëkk di am loi dëkk dañ fay teg loi ku def lii lii moo lay dal kon nag loi bi doxal dëgg aussi mu ne ma ne loi buy doxal dëgg aussi am na ci solo trop waaw mais loi génn na fii ñu ne ñi ñi jiite ne duñ ko duñ ko appliqué mais bi la yoon mais bi mais ci cas bi aussi gis nañ réaction bi nga xamante ne euh, vraiment ki nga xamante ne moo di euh, moo di euh, procureur bi daal di ne génn quand même Euh, am euh, lettre boo xamante ni daf na ko génnee wax ci ni nga xamante ne noonu la ñu euh, noonu la ñu daal di incinéré ko nga xamante ne moom la ñuy wax CF ñu jàpp ne mbir moo xamante ne mbir mu doy waar la amee bésu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2023 mu nekk loo xamante senegal mu su gis moo ngi ci rappelé aussi moom nga xamante ne mooy Abbas Yaya Wane nekk. foofu noonu nga xam ne moo di ci Kaolack ne képp koo xamante ne de façon directe ou indirecte sa loxo laale na ci de profanation boobu la jàppal ne yoon moom lay wër te suñu ne moo war mais aussi tamit euh, personne man man man boog personnellement ah, na àdduna xëy na war nañ la may itam ci li nga xamante moo indi loolu est ce que tamit waruñ ci woon njëkk a parce que su nekkee dañ ko yóbbu robi ca benn diwaan waa diwaan googu bañ ne kooku duñ ko fa suul ñu indiwaat ko ci beneen diwaan ñoo xam ne doon ko suul mais est ce que woon waruñu woon defee neneen lu dul lu dul noonu. waaw xam nga li ma la wax mooy sànq dama ne la. Mhm. li fi xewoon juin xaw ma juillet li fi xewoon. bu procureur génne woon ñu topp nit ñi di leen rey. Mhm. boobaa kenn du am sañ-sañu dem sulli nit di ko taal. Mhm. parce que dañuy xam ne dëkk bi am na loi. mais dafa am lu fi jaar ba léegi kenn waxu ci dara depuis deux mille vingt trois ba léegi. kenn waxu ci dara mais lu tax kon boobu lu tax boobu waxuñu ci dara bii ñu bëgg see wax kon bii da leen arrangé bii kon bii ñoom taqe wuñ ci bële xanaa dañ cee taqe moo tax waxuñu ci dara dëkk day am loi dañ naan ku def lii lii moo lay lii amul nguur amul sa papa nekk président amul sa papa nekk ministre amul nga am xaritu ministre amul dara boo defee lii lii moo la ci fekk dëkk noonu lay doxee mais dëkk du gouvernement bi lu ko neex lay def doomu aadama bu leen defee lu leen neex nga ne non ñoom waru ñoo def lu leen neex yow mi jiite yow yaa war a njëkk jaar ci yoon yow boo amee kër sa wa sa yow yaa njëkk war a njëkk jaar ci yoon mais boo amee kër di sàcc di fen sa njaboot bu sàccee fen est-ce war nga ko def dara d'accord merci léegi euh, dem ba am na tamit la xibaar boo xamante ne euh, sànq ba ñuy euh, door waxtaan wi dañoo dab ci woon mooy ki nga xamante ne moo di Amadou Ba bokk ci parti Pastef moom nga xamante ni keroog ci émission bi di Numbelaan lañ ko invité woon te ñu daal di loxo ñi ko defoon maa ngi leen ko doon wax mooy section de recherche léegi nag xam na li nga xamante ne moom lañ koy toppee ndax ci xibaar yi nga xamante ne avocat kii di Ousmane Sonko jënd koo génne mu di maître Ciré Clédor Ly mooy moom nga xam ne moo di Amadou Ba liñ ko toppee mooy rapport médical bi nga xamante ne moom la ñu wax ne ci internet bi la jaar dañ ko jiiñ ne moom moo ko daal di moom moo ko daal di fësal donc euh, ginnaaw loolu nag daal di nañ koy euh, déféré au parquet ginnaaw bi nga xamante ne euh, charge yi nga xamante ne lañ daal di gàll ci ndoddam donc information boobu daal la ñu daal di jotee ci ki nga xamante ne moo di maître Ciré Clédor yi moo xamal ne kii di Amadou Ba jamono ji nag déféré nañ ko pour diffusion du rapport médical donc mooy information bi nga xamante ne waaye rapport médical benn Amadou Ba defu ko du benn Amadou Ba ñoom dañuy ñoom fa ñoom fi mu ne nii il faut ñu am ko ñu takkal mhm. ñoom ba Juan Branco ba Juan Branco génnee foofu ay maire la ñuy wax dem nañu ba jàpp maire parcelle naan moom moo ko gi waaye ñii nañu dimbali naan ay Ba Amadou dara ñoom il faut que ñu am kenn kuñ ko takkal mhm. waaye ñoom dañu yaakaar a yeewu nit am mhm. ba ñu jàppee Amadou Ba rek xamoon naa ne diñ ko dinañ ko am luñ ko takkal ñoom terroriste terroriste terroriste yi dajale cent millions nee nañu su Sonko la ñu bokk te hmm. terroriste yi ñooy dajale cent millions de hmm. ay terroriste nekk fii di liggéey sàcc ñu fenn hmm. dajale cent millions ci benn jour nee nañu benn parti la ñu bokk ah mais saram am na yenn yoo xam ne yanuwul maanaa ñoom nañu tëli rapport bi waram wul portewul plainte yoonam new ci waa léegi mais amul ma mook génne waa léegi kan moo ko léegi ana ku ko jox Amadou Ba. Mhm. wax day yenu maanaa gis nga ñoom dañuy fooy seen xel ñoom dañ ne dañ ko bëggoon jàpp parce que Amadou Ba affaire yi fan yi yëpp moo mooy affaire yu justice ak lépp moo ciy wax wax ju leer bu desee ñoom plateau wax ak ñoom ba ñëpp jëpp leen. Mhm. loolu la ñu wax ñoom loolu la ñu bëgg arrêté yaakaar na mën nañ ko jàpp waaye trois mois yàggul man mii sax buñ ma ne nañ na ñëwal ñu jàpp la trois mois sax ma ñëw Sénégal ñu jàpp ma trois mois léegi mu <laughs> déedéet waay. lépp mu jeex ah lépp mu jeex trois mois. yow Salam wallaahi azim maa la ko wax billaahi wallaahi taala Benno Bokk Yaakaar dootul toogaat ci réew mi. d'accord merci nañu dimbali waay. merci affaire la Mbaye Niang lan lan nga xawma lan moo ci xaw nga ni kooku triant boobu tamit. waaw waaw xanaa jeexale foofu rek ndax euh, démb Mame Mbaye Niang dañ ko euh, invité woon fi nga xamante ne moo di euh, ci benn rajo de la place ñu koy laaj ci mbiri Prodac bi nga xamante ne jamono ji aussi